thank you man maay bañ na naan daaw de waay <laughs> ah Papa Ndiaye tey moom jóg mi naa franchement parce que man yàgg naa ko suivre sur TikTok eh, au début dama doon gis sax am ñuy commentaire commentaire ne est-ce que nekkul dafay teg morceau bi est-ce que nekkul dafay genre beneen dafay jël voix bi affaire yooyu mais par la suite j'ai vu mu def ay démonstration wooy ay wooyu Papa Thione yu compliqué nag yu naqari relevé mm-hmm. mais daaw de la moo la def wooykat parce que di nga bëgg nit di woyantu ay woyam di la moo lay motiver à ce artiste nekk musicien te jëloo beneen yoon c'est-à-dire indi say style bopp wala nga génne sa ay morceau bopp mais nga ne man Papa Thione ndaanaan bu toll ne Papa Thione mhm. moom laay relever. ndeysaan <clears throat> Papa Thione moom comme ni may waxee chaque jour rek xam naa cofeel moom ma boole ak moom. Mhm. waaw mooy yàlla ni muy def rek te du la tàggu bu koy def. Mhm. comme li ñuy wax booy màgg dalay bett da ngay xëy rek gis ne toll nga grand. et cetera cofeel noonu lay demee tamit aussi. da ngay jékki rek mu nekk ci yow. mais ta motivation pour faire de la musique sa motivation. waaw Papa moo tax nga bëgg woy depuis quand nga sentir ne am na talent bu nekk ci yow am naa affaire Papa Thion ne ci yow nga war ko imposer. waaw man man dama mas a xam ne sama baat fi ma koy bëgg a yóbbu dafay dem. ok loolu dama ko mas a xam balaa maa woy mais Papa bu ma bëggee woy moom la bu ma bëggee def musique moom la ci Papa damay wax ne du woyam sax. Mhm. mais jëmmam rek daf ma neex. ni muy jëfee. Mhm. ni muy waxee. Mhm. ak li muy dégage personnalité bi. nga xam ne lii ci moom la nekk. waaye personnalité bi ak wayam tegsam mhm. aussi surtout. mais Daouda bi ñu mujjee gisee Dakar TV ak léegi man dama gis ni da gën a avancé ci affaire Papa parce que man fàttewu ma lool de. <laughs> ma fi invité invité la fa nga way. mais tey da nga gën a dugg. waaw ci ay accord am quoi léegi da ngay yegg. gën a xam Papa Thione Daouda. ba pare ma gis la nga def li américain yi def souvent. américain yi bu ñuy yëg dëgg lañuy def da ngay gis ñuy ñuy dëgg. ba gis kii nga way ba ñëw taxaw fii nii. Mhm. dama gis ni bëgg ku bëgg li ngay def nga. carrément <laughs> loolu moom leer na naa ñi yaakaar naa ñi may àndal xam nañ loolu ci man. Mhm. man benn bis jàllul sama xel génn ci musique. bi ma nekkee ci musique ba tey sac bu ma xëyee ci laay dox ci laay wax. mais am nga ci yaakaar. trop. Mhm. te yaakaar boobu dinaa ko atteindre. incha bu ma yàlla bàyyee kii. incha allah. Mhm. parce que dama gis personnalité bi nekkoo di takk ay chaîne. Mhm. bënnoo ay nopp xam nga. waaw il est correct maa ngi dégagé quoi. correct il correct mais il de des lettres aussi. oui yaay. <laughs> il a des lettres. waaw loolu lug ah. la il correct lug la lug la. waaw c'est son yi. moom du dara benn euh, xam nga mbooloo ki ci gën a njool rek la ñu xam mhm. mbooloo. ki ci gën a njool rek la ñuy ràññee. waaw peut deewul de. <laughs> am nañ ne ci moom. Ah. am na lu nekk ci moom am na yu ci moom. beneen question bi ma bëgg rek avant Asi di ñëw est-ce que da nga jël décision juste pour rester ci registre Papa Thione di relever ay morceaux Thione wala bokk na ci sa plan de carrière li ñu mën a xaar ci daaw Daouda mu def ay musique boppam ci propre style am ci ay euh, propre parole am. ay wayu boppam ay wayu boppam def say fi bopp loo xamante ni du ñu gis Papa Thione ci yow. waaw parce que du ma ne sax pare naa pour def ko wala bu ma yeggee fenn def ko. Mm-hmm. mais maa ngi ci. ok mm. ànd ci ak père Max Mele. Mm. borom Mbong Dong. ok wax dëgg yàlla. Mm. ñu ngi def lu am solo. en plus ma jàllale waale def nañ benn album boo xam ne huit titres la Papa Thione rek la. Euh, yaakaar naa moom mais moo ko arrangé moom moo ko moo ko moo ko moo lépp moom la. ok en plus sama yëfi bopp yi may def tamit moom moo ko joué. yaakaar naa comme li ñuy wax sama bëgg-bëgg la. Mm-hmm. ma bëgg ko bëgg ko sama xol man bañ na ko ba. Mm-hmm. damay déglu ñëpp mais ni ma mel ci Papa Thione ko ci. non yaa ngi koy déglu bu baax. waaw déglu moom yaa ma ko ci kenn. Ah. ba pare tamit du topp ay waayam rek mais léppam laay topp. ok ba des wax ci moom daal sax nit da koy jaaxal. mais amaana bëgg moo demee noonu. man loolu laay wax ba pare tamit mu ànd ak ndimbalu yàlla. Mhm. parce que man dara rek doyut. Mhm. mais yàlla da ciy def loxoom. ok ñu doog di man a gis loolu. am na solo Asi. bu une dernière question dégg da nga koo commencé est-ce que am nga. bëgg-bëgg wala yëg-yëg boo xamante ne mën nga bokk duyoo ak Wally Seck. waaw bëgg naa ko. Mhm. bëgg naa ko. Mhm. waaw bëgg naa loolu. ok. ah Wally xam naa ne loolu dina ko dina ko neex de parce que dina am chance su woy ci timbre boo xam ne dina mel ne kuy wandoo papaam. Mhm. waaw parce am na lu ne ci yow loo xamante ni ñi yor ay noppi garmi di déglu musique di ay melomaan boo wooyee dinañ xam ne am na ay bagages yu ne ci yow yoo xamante ni. ci Papa Thione képp lañ ko doon lañ ko doon gisee Papa Ndiaye. ay jox mais mais nag neexul ba neexul. tey bi muy way. Thione yàlla na yàlla na xippee àjjana. mais Mara Papa Thione ay wayam boo koy déglu da ngay xam ni kii. Mm-hmm. nekku fi di way ay wayu falax falax yi ñuy xew léegi de. ay wayu am njariñ. yu way am njariñ. jongoma bugguma ngay jaayu. Mm-hmm. maanaam ay way yoo xamante ni day mel ni. Mm-hmm. da nga ko jëlee ci alxuraan segg ko defaraat ko jox ko doomu aadama yi. lu mu woy téere la ay wa ci yow mi yaa bëgg. lu mu woy téere la. Thione ca téere ya la. lu mu woy <laughs> téere la. boo dégloo la mu woy ci sàngara déglu la mu woyoon ci borom kër. noo man yooyu mën na maa rey ay jur sànni. Mm-hmm. yooyu man ay morceaux la yoo xamante ne waaw ay ah, non Papa Thione yàlla yàlla yërëm ko li ñu desee ci waxtu bareetul insha allahu rabbi euh, euh, lundi Daouda yaay nekkaat suñu invité keneen du fi ñëw keneen waaw jaaykatu beñe yi di way ñëwuñu fi de yow yaay ñëwaat lundi yaay waykat bi waay la noos en direct xam naa ne manager bi dinañ ko may mm. équipe bi nekk ci ginnaaw yëpp dinañ ñu ko may insha allahu rabbi Daouda lundi ñu amaat la format bu gën a yaatu bëgg naa sax nga indaale guitare soit benn solo wala bu mm. defee ma gën a dégg Papa Thione am naa ci moom yaakaar de ndax yow yow commencé góor sama téléphone bi ñoom tàkkoog ñëpp ñoo ñëpp ñu doon seetaan mais moytu leen de ñëpp ñu doon eh, seetaan eh, xale yi <laughs> damay wax ak yow incha allah jeex na. dañuy dañuy dañuy tàggatoo rek seen yëpp ñoo leen dab nangu seen carrière. <laughs> dégg naa mag nee nañ bëgguñu ko tardé te ko tardé ñoo la tardé. déggal lii laa dégg mag ñi wax El Hadj Papa Ndiaye ñu tàggatoo bàyyi daaw de mu defal ñu dernier morceau. non man kay li kii li kii di way naan bëgguma ngay jaaw. sama gel yi. wuyaay mu <laughs> sama gel yaa ngi seetaan. Ah. daaw di six gel rek laa am bariwul ak kii muy set. Ah. <laughs> ak ki muy ñëw barki démb. waaw kii niroo Kumba Gawlo muy huit muy huit. <laughs> ak yeneen deux yu ma fàtte muy. ñu diis kii nit ah on te souhaite un très bon euh, week-end. merci beaucoup donc sama sama sama tëj maa ngi euh, remercier bu baax a baax ñi jàkkaarloo woon ak sa TV. di stan les ambianceurs euh, tey nag comme ni ñu leen ko waxee problème technique lañu am. Mmh. mais lundi incha allah di ngeen am. comme ni ngeen ko amee tey mais mu gën a yaatu xam ngeen comme ça ñu gën a mën a xam kan mooy Daouda Ballago mm. Seck mm. donc euh, su jeexee rek jeex na mais c'est les angoisses de la télé c'est les angoisses de la télé qui a fait le déedéet kenn du wax loolu ah. déedéet eh, les aléas du Mara lundi moom mooy ñëw de waaye mardi xaadim taa na rafet de. xaadim taa taa daa téeméeri daa daal bi jër. fan yi dafa xewi nag. xewi eh, eh, fan yi dafa xewi eh, waaw. xewi télé bi ku xewi. télé bi ku fi gëj xewi fii sama xarit la loolu daaw na télé bi ku fi gëj xewi. waaw mais mais moom yal fii la ñëpp xewe. wuy ma ko ñëwal la maa nga ñëw moom yàlla moo ko defal nag yàlla moo ko defal chance lu mu génne mu doon it. waay xaadim temps su ma xarit la. xol bee rafet. non borom baax yàlla yàlla defal ko jàmm daaw de ça a été un plaisir kontaan nañu wax dëgg yàlla. en une minute nga remercier ñi jàpp ci kombaa bi mënul mm. ñàkk Euh, ñu ngi bëggee téléspectateurs yi ñu doon topp yépp espérant que vous avez eu autant de plaisir comme ñun ni ñu ko amee euh, mbégte rek la am pour servir leen saa su nekk ci ambianceur ah si nga koy junj sànq le 16. mais moom balaa moo dugg. Ah. waaw waaw le invité ndax sama xarit bi. loolu. lu nar a xaw le man ah. maa bëgg mu nekk suspense code la baal ba ci kanam. Ah, incha allah incha la loolu day am. daaw de en minute nga tàggatoo soog ñoo woyal beneen morceau waaw di di sant rek euh, di sant mooy comme ni ma koy defee chaque jour rek. Mm-hmm. parce que ay nit moom bu ngeen dee nekk. Mm-hmm. Euh, ba lu mel nii xew day yoon nga tudd leen. Mm-hmm. sant leen aussi wax sa cofeel. Uh-huh. fi mu toll ci ñoom. Uh-huh. waxe tamit seen cofeel. niñ la koy wane yow sa jëmm. mooy ku ci mel ni Père Maxime toog. wax dëgg yàlla sonaluma ci dara saa yu ma jugee mu jug. te mhm. mag ma fopp mat ma papa. te bu ko neexoon du ko ci fekk. yàlla yàlla fay ko. amaana woyof toy. Mhm. ba mel ni mbaxe na. Mhm. mën a ànd ak man mii tamit. di ma dooleel kontaan naa ci moom loolu. borom mbongdong ba pare tamit di euh, arranger samay morceaux di ci sonn di ci def kemtalaay kàttanam. te loolu yombul. macha allah di nuyu tamit Modou Lo mais. Euh, góoru ta góoru tàkko. dubu parcelle bi Modou Lo siree ma ca ndaam mais. moom fi mu nii Modou Lo lay. loo siree ma ca ndaam mi. <laughs> góor góor góoru tàkko waaye tamit di jaare noonu di nuyuwaale tàkko sama manager sama yaay ji ju ah. baax jooju nga xam ne lu ma yàpp sama loxo rek moom moom moom mu dugal ci yaramam macha allah tey dañuy yem ci ñoom waaw ci ñoom ñett non non ah, damay bëgg a dolli damaa bëggoon ñu ci des nga denc ko ba lundi rek non bàyyil ma dolli dolli après lundi ma ma wayal leen après lundi ma yeggale ay ca kon incha allah waaw di nuyu tamit ku ci mel ni papa ji bi borom ñaari galon yi mm-hmm. moom tamit bàyyu maman mm-hmm. day sonn ci man toujours wax dëgg yàlla bës romb te woowu ma nemmee xool sama musique mhm. di remercier tamit Babacar moom mhm. day dox ay yitte rek ci man rek mhm. te mag ma fopp mënoon ko cee bañ a fekk moom dafa absenté mais yàlla na ko yàlla sàmm fa mu nekk ak la muy lijjanti moo ko xam yàlla na ko yàlla sàmm waaye di nuyu kii tamit di ko hmm. sant woyof tooy moom tamit di nuyu Amina waaye yéen tamit di leen sant di ñaan tamit télé bi gën a dem ca kaw a kaw a kaw Papa Ndiaye dañoo tase Dakar TV la fa laa doore ndeysaan waaw waa Camara waaw ma way ma waye waaye mënuma bañ a nuyu mati borom Angleterre ak rakkam Adama hmm. waaye bi ñu tasee moom Papa mi dafa am lu ma way hmm. mu taxaw di ma diglu ba ci yàgg Papa Ndiaye fàtte nga way ba fàtte naa ko de doo ma ko weelaat. way way ko ñu ñu ñu bu jekki wan ñu boppam jëxraan xam na ne dinañ ko catu. moom nee amul ndey amul baay. jurul kenn kenn jur ko. kii kay man na boppam. xaw ma kuy laam laamee. kimtaanu suñu borom. coon bokkuma ci oh waaw oh, waaw oh, oh. ci kàttanu suñu boroom lu bay dundee màgg ci ba am sikki bu gëmee bu gëmee boroomam man na cee ba muy dee ci kàttanu suñu boroom su ma xoolee jaar jaar suma ma xoolee sama jaar jaar ak tooñi ma tooñ sama jërëjëf Daouda ba léegi incha allah merci à la régie merci à Pape Maguette Modou Diouf Papis Mbaye ci production bi euh, Mohamed ak euh, Pape ci son bi jaajëfal nañ leen bu baax a baax nañ di incha allah ñu dellusi ci beneen ambiance Daouda mooy ñëwaat sama rak alaaj Papa Sala Bigué je te souhaite un très bon anniversaire Sala Bigué sa baay